asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waaw ba léegi ci wàccaayu màggal gi ak euh, noflaay foot ñu fas yéene ñëw nag tey ci li nga xamante ne ñetti recette la benn bokk seeg sa morom nag dañuy njëkk defar benn infusion waa ndox maa ngay baax waaw ndox maa ngi baax bu ko defee ñu defar benn infusion ok infusion boo xamante ne euh, moringa agrume la dama ciy def pamplemousse Euh, def ci euh, clémentine boobu mooy benn recette bi voilà après ñu ñëw defar fii benn cocktail boo xamante ni dafay am poudre de moringa am ananas am lait de coco am mango ak banaan boobu mooy deuxième recette bi buñ ci jógee defar benn smoothie bowl boo xamante ni dañ koy colère moom it day am banaan ñu def ci coco euh, def ci fruits rouges Euh, ak lan laa fàtte defe naa ak jus de fruit voilà benn smoothie bowls boo xamante ne dina am yeneen njambaxtaan ci biir waaw dina ci dugal yeneen ingrédients ak nu mu ci mënti demee tey Noflay Food ñetti recette la indi yoo xamante ni benn bokku seeg sa morom recette yoo xamante ni mën nañ ko def ci wàccaay màggal gi ndax mën na remplacer petit déjeuner ndekki daf ciy andi vitamine indi ci ferñeent yi nga xamante ne moom la suñu yaram soxla ba pare dañuy dugg toujours ci catégorie màggal au naturel bi nga xamante ne moom la ñu sàllool boobu ba léegi léegi sans plus tarder ñu defar infusion bi euh, ñu defar infusion bi parce que euh, agrumes yi dafa war a infuser ci biir euh, ndox bu tàng bi. voilà infusion yi nag su ngeen ko bëggee te amu leen matériel yi koy defar wala amu leen personnel bi wala amu leen jot toujours bu leen fàtte ni Noflay Food am na équipe boo xamante ni day déplacé wu pour ñëw defaral leen ko. nañu raxas sunu agrumes bi ba mu set parce que damay soxla gest yi daf ciy andi goût ba pare ma jël li nekk ci biir voilà léegi. Euh, fii ni sama kaas bi nga xamante ne moom laay def euh, moringa bi infusé ko fële ci ndox bu tàng bi voilà damay tibb ci infusion bi moringa nature bi wala nga jël sa moringa bu am verveine wala nga jël sa moringa bu am menthe voilà def ko fii nii su fekkee amul amuñ leen amu leen yii tamit baxalal ndox ba mu bax rek nga fay ko def ci sa moringa fay gaz bi tëj ko bàyyi mu infusé voilà léegi fii laa koy accroché def ko ci ndox bu tàng bi laataa loolu ma jël gest yi ma xolli def ko ci ndox bu tàng bi tamit pour mu infuser zeste pamplemousse bi ak zeste clémentine bi zeste citron daf koy mën wala zeste d'orange voilà mu nekk infusion parfumée yoo xamante ni baax na ci ndékki léegi dugal naa moringa bi nañ ko bàyyi foofu mu infuser le temps que ñuy ñëw ci yeneen ñaari recettes yi bu ñu paree terminer ak infusion bi fekk moringa bi infusé bu baax et ñu bàyyi ko mu sedd voilà léegi dañ koy bàyyi mu infuser ci biir andil ñu lu ñu soxla ci euh, parfum voilà ci blender bi damay def ananas voilà ananas frais bu fekkee tamit amul nekkul saison mën ngeen jël ananas yi nga xamante ni moo nekk ci conserve bi damay def banaan banaan bee koy faral ak mango voilà mango mango ci période am voilà def ci nag lait de ko waaw euh, recette bi nag borom na fly food moo ko moom Fatima Diadia voilà moo joxe recette bi ma bëgg ko ñam wax leen lu muy saf bu ko defee ngeen reprendre ko. léegi nag li koy coloré mooy poudre de moringa bi nga xamante ni liñ ci wax ci ferñeent yépp ak liñ ci wax ci bienfait gis ngeen ko ci Alphie Cuisine. kudd bu ndaw voilà après ñu xool couleur bi nu muy demee waaw ah, poudre de moringa bi. et puis blindé li moom jus bu neex la moom leera ko ko moom fu mu dem rek lu neex la war a mën a doon voilà jëlal texture bi voilà wuyul na mu faree rek lii xam nga ni soo ko dóoree soxlawul ngay ndékki voilà boo ci amee kaas soxlawul soxlawul ndékki ci casserole bi ci cafetière bi rek laa récupéré def ko fii voilà léegi dama xolli euh, pamplemousse bi nii damay récupérer quartier yi quartier bu ma récupérer rek ñu dugal ko nii ci biir voilà mu infusé nekk euh, moringa agrume voilà gis nga récupérer naa pulpe bi yëpp léegi dañ koy def fii voilà dañ koy def fii ci biir euh, moringa bi ba pare def ko ci verre yi nga xamante ni moom la ñuy servir voilà pour plus de gourmandise pamplemousse laa def ak euh, clémentine voilà. bi pare na léegi dañuy defar troisième bi nga xamante ni moom laa wax smoothie bowls buy am euh, fruits rouges yi muy myrtille ak euh, framboise dinaa ci def tamit banane parce que bu ñu fàtte ni smoothie yi banana même boo ko congelé mooy gën mooy indi texture bi ñuy soxla. voilà dañ ko may banaana may ko fruit rouge ak euh, poudre de baobab voilà smoothie bu neex mu ko damay garder tuuti pour décoration bi voilà moom poudre de baobab nature bi moo lañ koy may pour mu am plus de texture voilà ay ca tuuti buy bu la neexee nga def sa benn kudd bu mag bu la neexee mën nga def Euh, jus de fruit jus d'ananas wala jus d'orange mais tuuti rek parce que dañu bëgg mu dang tamit parce que smoothie bowl la euh, li ma li ma waxoon bële paase rek soo koy lekk sa kuddu ngay ngay jël di tibb li ci kaw di génne waale li ci suuf mu mel ni genre salade de fruits deux en un ngay am. voilà amoon naa fi tuuti jus d'orange nañ ko ci may rek waaw tuuti mixé bu dangu dangulee ñu dolli. yëpp yaa ngi mel ni lu ñu def bisaab de. couleur am couleur moo njëkk rafet. voilà ku jéem a voilà léegi décoration bi mooy des dañ koy may ni ay lamelu banaana voilà juste di leen rappeler ci numéro de téléphone yi ñiy yiy affiché mën ngeen ci profito passer seen commande ndax euh, Noflay Food dafay liggéey ak ay collaborateurs yu bëri yoo xamante ne fépp fu ngeen nekk rek lu ngeen commandé dañ leen koy indi ba fi ngeen fi ngeen dëkk ndax ay GP. voilà quelques lamelles de coco coco bi ñu toj récupérer copeaux yi voilà def ay copeaux dina ci andi décoration bu rafet ba pare nday indi croustillant bi moment bu ñu koy lekk. comme ça mu bañ ko nëbb. et puis am naa ay graines de chia. voilà ñu ko ci ni waaye ca mi ngoog nag mi sama gaay benn vidéo ngeen am ci ñetti recette yoo xamante ne benn bokk seek sa morom benn bokku seek saveur ak sa moroom li ma fàtte def fii mooy lem voilà suñu infusion fruitée bi nga xamante ne lem lañ ci def pour euh, euh, pour safal ko voilà safal ko am na pamplemousse am na clémentine ñu def ci sunu moringa authentique bi infusé ko ak xollitu ak gest clémentine bi ak ak zeste pamplemousse bi voilà fii ñu ñëw ci smoothie bowls boo xamante ne euh, poudre de baobab bi buy bi lañ ci def def ci fruit rouge moo tax mu indi couleur bu rafet bi def ci banaana mu andi texture bi bu ñu paree sànde ci sunu quelques euh, copeaux de coco def euh, myrtille yi framboise bi ak banaana bi pour def tuuti décoration voilà fii ñu am fi benn smoothie boo xamante ne Euh, mangue ananas boo xamante ne euh, ananas mango banaana ak poudre euh, de moringa lañ ci def moom laal ko tuuti décoration di leen wax ni Noflay Food mi ngi toujours ak numéro téléphone yi nga xamante ni bu ngeen ci wootee di ngeen am ci produit yi muy 2 kilos yeeg 5 kilos yeeg 10 kilos yi pour spécial màggal poudre de baobab moringa ak bisaab bi nga xamante ni bisaab authentique bi pour yombalal leen liggéey bi. voilà mu nekk ay recettes yoo xamante ni idée de petit déjeuner la idée de ngane la la foo ko dressé dooru starkal la ndax say couleur ku ñëw seetaan ko nga am ndam maa la wax lii donc je vous souhaite une très bonne dégustation et puis on se donne rendez-vous très bientôt ci Alphie Cuisine ak Noflay Food sama gars yi